yéen bu ngeen yëngatoo daanaka <laughs> nekki nu nit ñi dafay xaw a doy waar man démb laa constaté nekk y a des mouvements d'humain sama koñ parce que Euh, à un moment donné mbalit mi c'était pas bien géré gis naa ay xëccoo sa lan mooy seen jafe-jafe exactement waaw ni nga ko waxee noonu la effectivement bu ñu yëngoo ci secteur bi ñu nekk ñun mën nañ ne impact yi ñëpp koy ressentir day bëri dégâts collatéraux parce que secteur bi ñu nekk wax dëgg yàlla am nañ conscience que ne service public la ñuy rendre warul am interruption mais xëy na dañoo nekk di dund ay jafe-jafe yoo xam ne dafa dem ba mënatuñu continuer di assurer la service bi comme il se devait. Mm-hmm. alors xëyuñu xëy rek aussi taxaw. Mm-hmm. parce que boo xoolee mën nañ ne at wala ay weer ci gannaaw a ngi nii sumboon nañ ay waxtaan tàmbali ko. ak mm-hmm. ay ak kilifa yi. donc jafe-jafe yi li ci ëpp ci tënk mën nañ ko wax c'est d'ordre financier. parce que dañoo nekk ci secteur boo xam ne boo ciy yëngu dafay laaj nga am ay capacité financière yu ama am solo mm-hmm. mais dina jafe ngay liggéey lu tolloog at daanaka fayeeku woo nga yor logistique c'est-à-dire yor ay camion yor personnel boo xam ne danga leen di war a fay ah at fayeekoo kan moo la waroon fay fayu la waaw xam nga buñ ne at fayeekuwuñu parce que li ñuy taxa taxaw nii sax fan yi boo xoolee dañuy réclamer euh, paiement ba fin juin boo xam ne xëy na amoon nañ ci engagement boo xam ne waroon nañ ko honorer depuis xëy na le 31 juillet mais dañuy jàpp ne rek xëy na jafe-jafe yi jàpp àdduna euh, bi moo law ba jàpp suñu réew mi donc depuis loolu aussi ñu comprendre di pousse di continuer parce que euh, li ñu mujjee woon wax ak ñoom pour que ñoom ñan la guy yi wala daxar il faut que ce soit clair. guy concessionnaire yi concessionnaire yi waa léegi damay damay ñëwaat sax surtout pour wax ñan ñooy concessionnaire yi. parce que concessionnaire yi boo ko xoolee ay entreprise privée la. Mhm. yoo xam ne ay sénégalais ñoo investir pour mën di liggéey ci secteur bi. entreprise yooyu nag ñoom dañu am ay matériel adéquat yoo xam ne moom moom la mbalit mi liggéeyee ko soxla maanaam oto yi engins yi ak machines yi. Mhm. ni ñu amee oto yi aussi nañu amee seen personnel. ensuite bokk ci ñi nga xamante ni si dañuy bokk ci valeur ajoutée wu réew mi mhm. parce que ay entreprise de droit sénégalais la yoo xam ne lépp lu leen war comme entreprise aussi dañ ci acquitté wu mhm. léegi nag ñuy liggéey am benn partenaire bi nga xam ne moom mooy état wu Sénégal structure bi ñu tuddee la SONAGED il est vrai que sax xëy na mbalit mi c'est une compétence transférée mais comme gis nañ ne communes yi amuñu assez mooy xëy na pour supporter ko mhm. état bi suppléer di leen jàppale di di leen pour gestion wu mbalit mi surtout léegi nag état bi ki ko to ki ko yoral structure am muy la Sonaged le DG Mass Thiam yor ko mhm. te effectivement pour être honnête deux dernières années yëpp gis nañ ne ay jéego yu ama am solo yoo xam ne waa Sonaged ñi ngi koy def mu am une meilleure visibilité nga xam ne prise en charge bu mbalit mi wax dëgg yàlla sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët mhm. mais loolu yëpp su réussir tey ji c'est parce que derrière ñi ñu tuddee concessionnaires yi ñoom ñoo ko supporter. parce que les concessionnaires du nettoiement ñoom ñooy ñi nga xamante ni si ñoom ñooy préfinancer la collecte le ramassage et la mise en charge et la mise en décharge des déchets des ordures ménagères parce que boo xoolee si décharge yi hmm. engins yi fa nekk ay concessionnaires ñoo fa nekk collecte bi ngay gis à travers tout le Sénégal porte à porte beeg yooyu yëpp concessionnaires yi ñoo fa nekk selon zone bu nekk ak concessionnaire bi fa nekk hmm. léegi concessionnaire yooyu aussi c'est dire que ni chaque jour rek dafa am ay dépenses yoo xam ne dafa leen di war léegi nag luy mun na ci tudd carburant mun na ci tudd huile réparation ak charge fixe yoo xam ne du bouger. Mhm. léegi nag loolu soo toogee lu yàgg xëy na en retour li nga liggéey di facturer fayeekuwuloo ko donc dafay xaw a diis. lu yàgg sa veut dire deux mois trois mois ñaata mois la ñu toog wala ci xayma ñaata lañ leen amee lu leen war a xam nga ça aurait été deux mois trois mois parce que ñun normalement sax waruñu toog au delà de quatre-vingt-dix jours yoo xam ne fayeekuwuñ ko. mais plateforme bi ñi taxawal nii di ko laaj parce que dañuy laaj fi ñu toll nii de janvier à juin. à combien à peu près ci parce que tey jii bëgguma sax di aventurer wu exactement ci montant yi mais xëy na ñoom les autorités de la SONAGED ñoom ils auront les bons montants pour mun ko wax parce que le collectif de concessionnaires boo ko xoolee c' près de 42 entreprise yoo xam ne ñoo regroupé wu au sein de ce collectif n' ce pas. Mmh. léegi entreprise bu nekk dafay facturer mensuellement. parce que su ma déggee souvent le DG muy wax pratiquement day wax liggéey bi boo ko xayma en moyenne 30 millions par jour la donc loolu. 30 millions par jour donc loolu boo ko cumuler mën multiplier ko par 6 mois xëy na peut-être mën na la jox. un certain kii voilà.